bi rëy na de Ndiambante ak Belende ndeysaan Ndiambante maa du ko dóor mu daanu wala dafa kaaw e eh, Belende ngi wane boppam Belende ak Ndiambante a ah, Belende mi maa du kaaw <laughs> la ilaha Belende dana ñambante da koo mu kaawoo mu yenu ñaf si suuf waaw waaw da nga kaawoo njambaan njambaan nga jël waroo koo bam la doore nga génne si sa la xel ak Belende asi Pape Mbaye Papa bul xeex Pape Mbaye na <laughs> Papa bul xeex Eumeu Sène Junior na booyi dal Bébé Birahim ak Boy Niang at bi mu ngi wax ak ñoom règlement lamb lu lamb nangu ak lamb bañ tey lamb lamb ba daj la bu dajee baax defaa nga lamb doo daj <laughs> ndeysaan waaw xale ay maas lañu bindu yi rafet na kar masha Allah boo xoolee bébé Birahim doon na ana boo xoolee booy ñàkk doon na ana mbar mi looy looy looy loo ay waay eh arbi arrêté na la tëjal nen bi nen bi te ñaam te irut ndeysaan roof na yëf yi arbi na bébé Birahim for na suuf daw jox ci koom ñu ngi leewatoo leewatoo bar ay eh waay nuyu Modou Paco nuyu naa la di nuyu ñëpp ñi nga xam liggéey si Elmo sa site internet bi nga xamante ne tey bépp ak de lamb ñu ànd say abu borom émission lamb tey waaw waaw borom lamb tey rek la de moom waaye yéen lii neexut nga jógee démb soirée waali ñëw tey fii si lamb ji waaye neen lii neexut waaye wala ma lu gën a neex lii ndeysaan Elmo TV mu ngi mu ngi fépp mu ngi si mu ngi si showbiz bi mu ngi si lamb ji actualité yi xibaar yi yéen kaay yi Elma TV daal mu ngi fépp ndeysaan bàyyiwul dara ndeysaan waaw waaw ah Assane Ndiaye Assane ñoo bañ <laughs> Assane ñoo bañ laay laay eh, booy ñàkk cokkaas na door no eh booy ñàkk dooraan na ko bo eh bébé Birame moo jóg balaa li dal fi sama waa ji dal dafa jël kurpañ kaawo ñu dóor ko mu bañ a génn dëggal boppam beleen di remisal dóoraat ko mu wàcc kaawo laaj laaj laaj ba eh waay kurpañ xaju si aw eh booy ñàkku eh waay bébé bi am jël sa ñu lay door ngay jug rek eh dañoo tase <laughs> Bébé Birahim di ndaanaan Boy Niang di ndaanaan waaw mu ngi bëre ndaanaan ndeysaan waaw dóor daanu boo xoolee Bébé bu dóoree du ay kurba ñu tase lañu ndeysaan waaw waaw Bébé Birahim ak eh, mu dóoraat waaw combat bu neex la parce que ay xale ay naataangoo la ñu eh jàpp na ko doo oh, da koy eh, door na ko eh arbitre arbitre baal eh, na arbitre bàyyi waaw waaw door baaxul di ko yoon mbër booy door ngay xool fooy door booy jël nga xool li ngay jëlee du yooru ay eh, booy yooru bu ñu la remisee nga waaw waaw lay lay la man abu man maa ko wax mbër mu si yor buñ la remisee nga wàcc bu lay dóor ngay daanu waaw bul yooru mbër du téléphoné mbër du yooru déedéet mbër da ngay ñeme li ngay def boo xoolee bébé Birahim ak booy ñàgg bébé Birahim moo gën a ñuul booy ñàgg mooy mbër mu leer mi moo tent tent bu naas bi tey booy <laughs> mbër mu ne ak caaj eh Boy Ndiang day door Bébé Birahim kurpa ñi ngay jël baaxul du la arrangé ndeysaan Boy Ndiang Bébé Birahim eh jël na ko lamb ji lamb ji laa ilaha illallah Boy Ndiang ak Bébé Birahim lu arbitre di wax lu arbitre nara wax eh waaw moo daan eh waay caaya moo daan moo daan moo daan waa ndeysaan xoolal coupe bi ñu tegal Garga ak Moussa Ndoye ñaari xale yi ay naataangoo lañu ay eh, waay ak Moussa Ndoye ba arbitre prime loxo dar gémmeñ ay xale lañu ñoom ñaar seen coupe bi na car macha allah ndeysaan Moussa Ndoye mu ngi sotteeku eh, ay e eh, Babacar dama ni ko coupe ay waay waay ñaari bërëkkat lañu ay bu arbitre prime loxo dar gémmañ ñoom ñaar waaw ñaar ñi ku fi daan mun nga am saa kees mu ngi lay toog di la xaar ñaar ñi ku fi daan mun nga am saa kees mu di la xaar ñaar ñi ku si mun nga am guy gi ñaar ñi ku si mun nga bërëk saa kees waaw ndeysaan ñaar ñi ku si mun nga bërëk sita yëpp ay yoonu laamu la ndeysaan waaw waaw waaw géwél ah waaw sabar dafa ñëw law bi dafa yett sabar mu ne maa ngi jooy mu ne jooy mu ne laa bëgg a dem mu jàpp yóbbu ngéwél ndeysaan ma ne ko law dafa yett sabar sabar jooy law bi ko foo jëm mu ne laa bëgg dem mu ne ah, boo xoolee Moussa Ndoye pare na Moussa Ndoye comme bi moom Mbita Ndiaye dañoo nduroo trop. Moussa Ndoye mu ngi jagar jagar boo xoolee dafa am confiance. dafa am confiance musa boo xoolee xam ne ndaanaan la Moussa tey gëm naa ne dina xeex dina bëre yaakaar naa tey bu roofee nga xam ne champion la mais kenn du champion Garga Mbossé kii moo waree parcelle kii moo jógee parcelle unité 4 unité 3 ñëpp tab ko mu war a fas yéene ak jàkkaarloog doomu yarax bi ndeysaan muy combat bu am solo. Moussa Ndoye day door day bëre. Moussa day door day bëre waaye Garga tamit bëru tàng la Garga mbootkat la na Moussa sóoraale loolu waaye Moussa xeexkat la bërekat la mais na sóoraale Garga Garga pied gauche lay mboote na sóoraale loolu bu baax a baax. bu arbitre bi loxo dina dar gémmañ. arbitre nga xam ne lépp dëgg la. dëgg la arbitre bi wax ñaar moo xool ban heure jot ñaar kur sifflé lee mu jox <laughs> dimanche la. le 28 avril 20h15 fii si stade Iba Mar Diop diggante Moussa Ndoye ak Garga Mbossé looy loxooy loola arbitre bi ñaar ñu ngi leewatoo Garga Mbossé ak Moussa moo ngem ngem bu looli waaw waaw moo takk tere bopp bi <laughs> ndeysaan ñu ngi leewatoo combat tactile la combat tactique la tactiquement de ça ku ëpp expérience yaa moom làmb ji waaw waaw ñoom ñaar ku ëpp expérience yaa moom làmb ji Garga Mbossé Moussa Ndoye ñu ngi leewatoo ey eh, waay waay waay waaw waaw vingt jot na fii ci Sénégal waaw ndeysaan tey la dimanche ey eh, waay bu la ko jaawaleeti le 28 avril diggante kan ak kan ñu ne ay xale yi nga xamante ne ni avenir u ay yaakaaru lamb lañu hey ku fi daan yaag sa kees seen leer na laa <laughs> ay la la Moussa Ndoye Garga Mbossé eh Moussa ñoom ñaar ku day xool sa borom liir kurpañ demagul dara demagul dañuy xoolante mbay son waaw Garga day ñool ba si amu gàtt da koo bëgg a nax laa ay waay Moussa Ndoye ak waaw ndes waaw waaw boo xoolee stade bi fi la Moussa Ndoye daan fi la ko Boy Niang daane moom Garga Mbossé kon ñoom ñaar ku nekk il faut def ñu def différence ku nekk yaa ngi sa yoon combat bi ku nekk ànd fa lu war na a fa yóbbu nga àgg tey si laam foo xamante ne nii ay waay ndeysaan ndeysaan ar bi attane na bëre walaan eh, xaar ñu si lii ñoom ñaar ay xale lañu ay ndaataangoo lañ dañoo war a bëre laaha illallah xaari <laughs> ñu ngi lewatoo Garga Mbossé ak Moussa Ndoye hey eh, moytul kurbañ bi waaw Moussa Ndoye moytul ma loxo Garga Mbossé wala Garga Mbossé moytul ma Moussa Ndoye mais combat bi ñaar ñàpp la de bu ñuy jàpp bu ñuy jàpp ci làmb ji jeex ndaa naanu bëre kan la ndeysaan la ilaha illallah ndaanaan la Garga mi ngay gis naa Super Étoile Garga Mbossé naa Yékini Senior Garga mi ngay gis naa Boy Niang Garga Mbossé ndaanaan bu ne si kii di Moussa am na ñaar ko am na am na vingt et un victoire deux moo ko fi daan ak Malick ñoo ñoom ñu kii la jox si lambu ndeysaan mun ta yomb si ñoom ñoor déedéet waaw moo yoon ku si daan yeeg sàkk say leer ku si daan mën nga jël sito waaw dem saa waaw mais boo xoolee lamb dafa war a ubbeeku Siteu amul combat Garga Sakis amagul combat Gouye Gui amagul combat mais lu tax mënuñoo bëre gone yi waaye ay ndaanaanu bërekat lañ Aziz Papa Mbaye amul combat xaaruñu seel nii waaw 4 minutes bëre combat bi du yomb boo xoolee combat bi mënut a yomb combat bi mënut a hey waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay waay doon ay Pape Abdou Fall waaw combat bi mooy combat bi gën si année bi ndeysaan waaw combat bi moo gën a mag si combat bi mooy tëj koor gi xam naa ne ñu doxantoog moom woor ak jàmm ñu ngi jëm si weeru koor lépp luñ si ñaan yàlla ñu yàlla defal si barke Seydina Mohamed eh Sénégal gii suñu réew la eh cokkas na Moussa day dem Moussa day dem de Moussa day eh, moytul moytul Moussa Ndoye xeex bi ñor de Moussa Ndoye xeex bi de day door gauche droite indo dox eh gaga co eh waaye gaga cokkaas na ay garga mbasa Moussa Ndoye ay garga mbasa Moussa Ndoye tey waaw ndeysaan waaw ndeysaan ay ay ndaanaan lañu la ilaha illallah ay ndaanaan lañu tey boo xoolee tey le 28 dimanche stade Iba Mar Diop bii tey fi ndaanam bëri na fi Doubales bëri na fi Landin Diame bëri na fi Fallay Balde bëri na fi Boy Bambara bëri na fi Tafa Gueye na fi ay waay waay waay Balla Gaye sax bëri na fi ak sa ak waaw billaay wallaay waaw amin waay amin amin liggéey la rek ndeysaan billaay wallaay dëgg la la ñoo ko bokk réew mi suñu réew la waaw dëgg la billaay yow amin waay amin ndeysaan ndam demagul ndam dikkagul ñoom ñaar ku ne am na ñaari avertissement boo xoolee Moussa Ndoye am na ñaari avertissement waa lii xaaruñu ko si yoon si ñoom duñu wanteer combat bi ñoom ñaar eh waay da waaw waxuñoo lii waxatewuñoo lii buñ ñu nax ñu ngi ey ay eh, waay buñ ñu nax ndeysaan déglu la muy Moussa Ndoye na ah Garga door na Garga door na Moussa réer na ah eh, dooraan na ko dooraan dal na jël na ko takk na ci kaw la ilaha illallah eh combat bi war na mën a jeex Moussa nag waaw waaw Garga daan na ko Garga daan na ko Garga daan na Garga daan na Garga daan na Moussa Ndoye la ay waay Garga daan na Moussa Ndoye <laughs> xale booy yaa ngi daanu la ilaha mu ne nga ni tey waaw Garga Mbossé ak Sa Thiès leer na naññi lamb ju rëy jàngoor ci moom la des xoolal ma waaj a ngi daanu la ilaha illallah dafa mel barke am combat na naññi ko Sa leer na déggoo ma de barke Serigne Faye ndaanaan daa juum ci booy Thank you.